ko doon laaj yëgsi na jaaxle jeex na location day jeex ci mim réew ak social shopping immobilier indi leen ay parcelles ka fa la cëmbee nekk ci région de Dakar quelques kilomètres de Lac Rose Quand ngay prononcer rek daal di dugg ca VDN 3 bi waaw li nga neex ba dak neex tek ci nak parcelle ay prix yu imbattable prix yu xéewale malaka wax de type de papier délibération mairie. ci social shopping immobilier ci xéewal rek lay dox kon nak woote leen gaaw ci 77 417 77 40 wala ci 33 835 08 67 mani mbéy ku fa am ay parcelle loy wax neex waaw yu sedd yeeg yu tàng yi waaw ñoom sëñ Pape lettre gi nii ñoom tamit seen yaram dafa tàng tamit kon bismillah kon bismillah barke borom Touba waaw ñu ngi def nañ daan def rek waaw kon ñu ngi koy doxalee nañ ko daan doxalee rek tey ñaan suñu borom yàlla nañ ci am ndam ak ngërëm maanaam collation nag ren ni mu waajale ci màggal gi nga xam ni moom la ñuy dégmal dañu bëgg murit yëpp xam ni kër sëñ Lamine ren baat boobu ñuy wax naturel dañu fas yéene lépp naturel naturel boobu nag maam na ko ñëpp dégg te xam dañu fas yéene jëfe noonu buñ dikkee ci seize safar incha allah bu ñu xëyee ndekki li fin wala yu nooy lay nekk te neex lool dañ ko booleeg beurre ak chocolat bu ndekkee ba noppi buñ déké ba nopi nak dinañ indi jus citron bu sedd comme nañ ko daan défé waye bi day gëna mucc ayib buñ déné ba xam nak añ ba nopi dinañ indi bisab bu xonk boole ak nana mante ju neex ak nana ordinaire nga xamni lepp ci naturel gi mo xon légui lay wat buñ déwé ba nga xam nak guddigi dinañ défar jus ginger jus ginger bu neex bu and ak ananas bu bari moom la ñuy def ci guddi gi incha allah bu nu xëyee 17 safar ndekki li laax lay nekk waaye laax bi nag dana wuteeg laax yi fi daan am ndax comme na ma ko waxee woon lépp ci naturel gi te lépp nu ngi koy waajal bu baax a baax kon laax boobu moom lañ fas yéene ndekkee bu nu ndekkee ba pare nag jus citron bu sedd bi mooy ñëwaat bu ndee ba añ ba pare nag dana leen indil jus buy boo xam ni dana ànd ak karasol yu ñor xomb neex lool. te daan ko waaj bu baax a baax te lépp ci naturel buñ demee ba nga xam nag si 17 safar boobu ngoon si buñ demee ba jullit yi soo noppi tombeek commission culturelle di def nañ ko daan defee ci biir ëtt bi dana leen defar lay caagri yu neex servir ko ñëpp te mu yaatu fépp incha allah buñ demee ba ci guddi gi nag moom bisaab bu weex mooy ñëw te bisaab bu weex boobu moom it dana bare ananas lool te lépp naturel. bu ñëwee nag ci bis bi nga xam ne moom moom la ñëpp doon waajal te moom la ñëpp doon xaar muy 18 safar bu ñu xëyee ndekki li comme ni mu daan demee waaye bi yoon dañuy delloo si poulet pané poulet pané boobu nag dana ànd ak ay frites ñoom mayonnaise ak ketchup ak salaat moom ndekki li moom noonu lay demee incha allah ndekki màggal gi bu ñu xëyee waaye bu ñu ndekkee ba nag jus citron bu sedd boobu biyoon comme na daan demee moo jitoo bi day am leneen lu ciy dolleeku ndax Sprite dana ñëw naanaa mant dina ñëw ñoom tas si dana ñëw ba noppi it sirop mant boobu ñuy wax Duval ñoom ñëpp dañuy ñëwaale kon boobu mooy nekk moo jitoo bi nga xam képp koo xam ne bisu màggal gi yaa ngi ci ëtt bi rek wala yaa ngi ci biir kër sëñ bi rek danañ fexe nga sawar lool ngir mën a màggal na nga ko bëggee buñ déwé ba xewlu ba nopi nak waxtu añ bi bu xewloo ba noppi sachet yu baax yooyu ñu daan defar ren comme lima wax dañoo délo ci cosaan lepp naturel kon bis bobu loolu surprise lay doon nak ndax xéetu naan yey ah, ya muy àndal loolu incha rabbi surprise lay doon ndax dana nek ñaari naan yu wuté kon collation am ren mel na ni lépp lu ñu daan def rek dañ koy yok kon loolu nañ ko naka murid yëpp waaj waxtu xewal bobu bu ñu xewla ba noppi jarul kenn dem fenn na ñëpp nek sur place ngir ñu bañ la ko netali kon buñu ñu lool ba ngon ci nak buñu joxé joxee yooyu ba noppi laata ñu yegg ngoon si xéwal yi nga xamni joxé nañ ko ba nopi jinjeer bu tang bi moy ñew and ak xorom polé ak citron bo mom ngir mu ñam yi ñu jëloon yépp mëna a kon lool buñ ko jëfëndiko ba noppi bu ñu ba ngon ci ñom ném da danañ ñew ñom fataay danañ ñew ak ñoom da danañ ñew kon lool buñ ko défé ba nopi guddigi inshallah gi rabbi da leen indil jus bo xamni momit moom jus cocktail lañ koy wax manam ci ni ma leen ko mën a nan yeey lay tudd nan yeey waaw jus bo xam day ànd ak dafa am yu muy àndal kon lolu bisu magal gi tam lay ñew nan yeey boobu kon naka ñepp bay xel inshallah buñ demee nak ba ci bir guddi gi danañ defar meew mu tang jër neex lool ku doon melo sa dal lay jox lox ngir xamni ñu ngi magal buñ ñu 19 19 safar bi inshallah rabbi pain au lait yooyu nooy nepp yooyu dañ ciy def chocolat ak beurre mooy dellu si bu ñëwee ba ndékk par nag citron bu sedd bi moom it mooy ñëw gungewaat bu ndee ba xéwlu añ ba nopp mooy bisaab bu xonk bi ànd ak naanaa mant ak naanaa ordinaire moom la ñuy delloo si bu ndee ba ci guddi gi nag guddi gi dañuy citron ngir mbokk taalibe yi foofu dañuy toll foo xam dañuy bëgg coono yi di wàññeeku kon loolu mooy discours collation ñaan suñu borom ñu defal te yàlla nañ ci am ndam ak ngërëm jërë ngeen jëf. ay ca Sénégal ku doon laaj laajte supérette bu yoboo noppalu ndax supérette si ñëw na nekk Cambérène tali Njaga Mbay gën leen ko préciser nag fi nga xamante ni fa la clando yi di tourner maa la ko wax de supérette bu bees tàq la te am tawféex lépp loo xalaat nag ña nga koy jaay ci biir poulet viande jambon poisson lépp la ñuy jaay ci biir am na tamit gelato et biscuit am crème glace am nutella biscuit lépp ñu ngi koy jaay ci boobu les suprette nee naa la ba tey ci wàllum jus am na lait maa la ko wax am na soow piir am na soow nag bépp xeetu boisson boo soxla it am na fa am na ay caakiri am na eau minérale foofu daal am na lépp dafa taw féexe ndax suprette al firdawsi la ñu ko duddee ci wàllum légume tamit am na fa waaw waaw am na ca biir lépp luy xeetu légume rek am na fa ñoom pomme de terre rek et waaye lépp am na fa laa la wax ci biir ba tey moom li nga xamante ni moom moo di supérette al firdawsi am na it li nga xamante ni moom moo di transfert d'argent maanaam multi service waaw waaw Wave Orange Money Kepa Western Ria MoneyGram lépp am na ci boobu la supérette bu la neexee itam nga toog sa kër xoolal numéro yooyu di daw ci suuf nga def sa commande lu la neex gars yi livré la ko ba fa nga nekk foo mënti nekk nee naa la bi supérette bu bees tàq la kenn du ko am di jooy doo ko gis di ko wëri ka fa dugg jaaxaluma de ka fa duggagul a ma yem gars yi ñëw leen waaye ñëw leen xool li nga xamante ni moom moo di alfir daw si supret alfir daw si nag nee naa la ma nga sedd guyi guyi gis nga yow foofu boo fa duggee da ngay mel ni ku ne aljanay firdawsi dañu koo climatisé ñaq moom doo ko fa indi doetet boo demoon ca àll bayit ba ñaq tooy xib da ngay dugg rek seetu guyi féex ma fa ne amul feneen <laughs> cey bile place maa ko naaw alfirdawsi